ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw بنو ñu sante yàlla julli عليه الصلاة والسلام gërëm waajur yi di ñaan yàlla gërëm leen ñu ngi nuyu mboole seen ko nekk ci tant ci baat bi nga xam ne yàlla nu ko boole muy jàmm di yërmande di barke yàlla na ko yàlla def ci ñun ñi ronu bi yépp waaye bu mu ci ñun yàlla na ko yàlla def ci àddina bi yépp tàggee bu ne dafa am jàppal diw loolu moo sabab suma jël kàddu ndax suma toogoon ba dem te waxuma ki xamul dana laaj lu tax wolof dafay wax ni ku ñu wokk sa góom nga rasu moo tax rek ñu jël kat fi ma ko sëriñ bu na joxee nag moo ma jaaxal ci dig digal booba moo ma jaaxal ndax euh, góor gi dafay dem marché xabaare yu dab ko ni ko boo demee jëndal ma sirij góor gi day dem marché golo gi jox ko xaalis ni ko boo demee jëndal ma sirij bi mu demee xool lu mu ko mën a jëndal gisul mu jëndal ko ab xaj def ko ci saako ni ko djé bi rëy na rëy go xam ci ñaay bi dong laa la ko mën joxe yobbu ko ba fu garab neew moy bi bi na xat golo gi ni ko waxu ni jaranik djé gi waye fi nga ko joxe ma jaxa mo ah, moo fi ma ko sëriñ boo ne joxe tombeek Cheikh bu di duggu ci te heure bi di heure ndax programme bi programme am lu bari du mën may nuyu kilifa yépp sof ko ci nuyoo Serigne Bouna waaye di nuyu suma yaay di suma lépp te lu mu doon tey rek moom la muy soxna barka mu bàyyi mi di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér di ko jéggalu yi ci coono yi ñu ko teg ndax ku ne xam na ni Saloum sori nga xeye fa dem ndang wara ñibbi noppal ni ma ngay jaar nguur wara xëyaat tegu ci yoonu salum te kenn waralu ko ku dul suma jëmbu ñu nekk solo si yaay boy bal ma ñu ngi koy jëkkaluwaat bu baax a baax di gërëm suma ñaareelu yaay muy soxna mi la di suma taw yaay ni ma koy waxee man xawma suma yaay aminatu mooma yaay lu ma mën moom la fu ma mës a fekk na lu ma mës a soxla wuti na ko jox ma soxna am yàlla na yàlla fay yàlla barkeel bi jaani nabi alayhi salaatu ki ci des dama koy tudd te su ma ko tuddaalee mu yóbbaale ñi ma àndal ñépp muy sëriñ Hamdi sëriñ bu na wax na ko léegi xale yi nekk Jean Deñay ñu tuddee leen union bi moom moo ko initié ci dajale taalibe yëg ni sëriñ si daat kilifaam la nijaayam la mu yëkkati lépp jox ko mu yor kilifteef gi ñu bootu ñun ñëpp ci ginnaaw mu ci daan it liggéey bu liggéey bu am solo effacé wu woon ba kenn xamu ko bi sëriñ si daat dëddoog léegi yi nanguwu caa feeñ ci dara lépp daf koo bàyyi man tey doxal lépp nag kon sëriñ xam di yewit lu ñu mës a ne yaa nga ca yàlla na yàlla fay la ko ni ko sëriñ bu la waxee bëgguma tudd imam Fall di imam ratib bu Malika moom it mu ngi imam yàlla na yàlla fay imam Diané topp ci moom di oustaz di borom xam-xam sànq bi ñuy déparé Dakar mu nga woon ca émission bu mu doon def ca ginnaaw foire ba daf ñoo dabu imam yàlla na yàlla fay sëriñ Bekke Kunta Sidi yow it yàlla yàlla taxawu ñoo bokk dëkk Kër Massar wax naa ko fii daaw nit ku lay mere ci dooma seet si joxeel la sëriñ Bekke yàlla yàlla fay Kunta sëriñ xam bi fa waroon njëkki li tax moo mujjee ko mooy téléphone laa ko woo dew moo fa téléphone mo ci njëkk a wax moy bu ren ay dàq bu daw te moy gëna neex loolu la yek tay fekk na ko dam fi la faran te bu suba am na feneen fu mu wara dem daf ni ma nañu genn ñu toog tuuti ngeen yeewi ma ma ni kon xaaral ma wax limay wax jox la nga ñaan ñu yeewi la cheikh bu yeggale ñu ko digi inshallah ki may mujjé muy Serigne Ousmane daf ma jégué bu mu ëpp bokk ci waa kër Cheikh Cheikh bi ñu xamante nag mag moom ci xamante bu doy waar wax na ko sànq ci kaamina bi nañu ay weer ci benn lal bokk nañu yéeg bokk nañu lekk lu may def mag moom la xam na ma xam na ko mën nañoo toog at du ne allo ma ni allo te bu ñu dajee mu mel ni démb lañ déggante loolu yàlla doxale na ko suma diggante ak moom su ma toog Dakar su xel dal yàlla ak moom la ndax moo ma wutu ci kër gi chaque guddi mu ngi fi donc sëriñ Ousmane yëwit yàlla na yàlla fay yàlla yàlla taxawu suma rakk di sëriñ Boubacar nekkoon ca organisation ba ca journée bu na mam bi moom ak Mohamed Gaw ñii ñoo ko yoroon xam naa dañ doon ñam nelaw moo tax ñu xaw guddee waaye nar bi ñu leen di jégalu bu baax baax di gërëm jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqatil qadriya wa tastadiu bi anwaril xalifati cheikh bu Mouhamed Kounta Baïko mu jaare ci cellule bu Ndayaan jaar ci Mouhamed Diom ak Ousmane Diop waaye jaar ci seen mag di seen kilifa bayalkal yi ñoom yàlla na yàlla fay leen awma seen fay yalla yalla yàlla fi ngeen bëgg ak àggale seen liggéey dal na fa ak Malika duma leen sant duma leen gërëm dama leen di ñaanal yalla ndax Malika moom maxuma loolu la yalla dogal waaw loolu moom suñu borom def nako ko di ñaanal suma tàngoor du yalla yalla fëgg bopom delloo ko ci sago bi jani nabi alayhi salaatu wasalaam bis bii nak sant yalla la ci man ndax

ci ñi ma ko firil bokk ci tubaab moom te gumay tubaab xake Cheikh Ousmane Sène sëñ Abdourahmane la ko Cheikh aloon ca bu mu demee Guinée mu ngi ci tant bi moom it sëñ bu suma tànt pend bu suma Adama Cheikh Baye Sidi Dia waaw nit li jege dégg leen moom ngay fàtte way jur bi la xam naa ci coono yi mu jóge yàlla na ko yàlla taxaw Cheikh Ibrahim Diop yaa ma wuutu ci Ablaye yàlla na la yàlla fay saa yu ma woowee Ablaye guddi man ma maa ngi ci Cheikh Ibrahim ku ko yéene la ku ko bëgg la Cheikh Ibrahim yàlla na yàlla fay bi jahi nabi alayhi salaam ñu baal ma rek doon li koy fàttu du ko gis doon te gisee njariñam ku ñu tuddul rek xamal ni suñu xel ak suñu xol tudd na la kon de sëy di borom këroon day faatu mosuma tànkoon kodde yàlla yàlla fay aw may tànk otoom mooy sumay tànk yàlla la yàlla taxawu bi jaay dem alayhi ci li ko firil dañ ne suñ la ko mënee tekkil ci noo ko mën a déggee mooy koy topp dara te jiitu la cim xel ba bis ma waxtaan ceeg Ablaye mun ma sëñ bi ma ne ko am ma buñ demee ba yëg ni dofuñu ko ma am mu ni ma man di di xalaat laa mës a gis man te foofa lañ toll ñu nag yow te lii fi nekkee su ma dërëm demu lépp seen doole la seen mën-mën la yàlla yàlla fay leen yaakaar bi yàlla bu ko yàlla tas su dee ñun am nañ dara ci Cheikh Bou borom Ndiassane am ko ci sant wi ñu yàlla jox donte yëg nañ ni ñu tuuti lañu ci am ko ci traite ji ñuy askanale ni bokk nañ ko ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla faj seen aajo ba ngeen yëg ko bi wasalaam yàlla yàlla faj seen aajo ba ngeen yëg ko bi xormati nabi alayhi salaatu wasalaam may tuddaat kenn rek te tëj jox Cheikh Boudio muy soxna Ndey Nogay Njaay di magu Ablaye Njaay xam nga yéene nit ki mënta wees nga ñawal ko ñetti yére ni ko force bi ko sol bii ma sol ci la bokk moo ko am lay bokkul ndey ak bay muy jigéen waaye di jàmbaar bëgg ma ba ma xam di dégg lu nekk it ngir suma jëm ku ma laal it nga yal na yàlla fay ci ràng gi rëy na gis nañ ko yal na yàlla barkeel loola nag su ngeen ko mënee doole yi Cheikh Omar Ndiaye la ak suma yaay Mata Sarr lépp ñom la ndax beccum lir suuf ci mbag yi kon yéen it yal yàlla fay len yalla yàlla taxawu len soxna ndey bekk nañu contant nañu xale yi dañu sàkk woon waxtan mais xajat fi yàlla xamna ko parce que it xol bu sedd rek waxtan la te lima bëgg wax man yek na ni bu cheikh bu taxawé fi dina ko wax lola yek na ko yalla nako yàlla kartanal momit di ko gërëm bu baax ci yombal gi mu ñu yombalal lii ndax bis bu jafe woon la ñu bëggoon ko ci mois de mars mai sayrullah le 4 mai bi ma ci waxtaanee ak baara ñu am ci programme ma jokkoo ci ak moom mu ni ma moom nga bëgg ma ne ko amul ma may ma ma xool ko ginnaaw gi mu tombe kamata ñu xol benen bi mu tombeeg seydou benen bi di ñëwuk serigne bi ma yek ni tabaski jege na ma ko yóbbu après tabaski ci lañ ma jox la siis loola lépp yombal Cheikh bu yàlla yàlla fay la gis nañ sa taxaway ci ñun gis nañu yi sa cofeel ci ñun gis nañu bàyyi xel bi nga nuy bàyyi xel yalla na la yàlla bayyi xel non yalla na la yonent bi tawul bopam bi xormati nabi alayhi salaatu wasalaam ah yonent bi nag ngay liggéeyal te dama gisagul ku ko liggéeyal ba noppi perte umu salama bi ñu demee Xudaybiya te yéeféer yi ñëw ni yonent bi ku jóge ci ñun ñëw ci yow danga koy delloo waaye ku jóge ci yow ñëw ci ñun kenn du la ko delloo Omar ni ko koma xanaa ñun ñoo dof kon ah ñoom ku fàqee ci ñoom ñëw ñu dellu te ku jóge ci ñun dem kenn du ko delloo loolu moom xalaatuñu yonent bi njaaxle ni teg parce que léeg-léeg nag yàlla seetaan mu ne ko kan mooy ñam sa keppaar yow yonent bi di ko fi bàyyi di dem feneen yonent bi ne ko gisuma mu ne ko kon gëmal sa bopp ni kenn du fi jóge di dem

yonent bi ni ko bala ngaa ni mën na ci man dara situation taxaw mu war ko régler lolo lako ko gi wax ni ko bala ngaa ni yonent bi mën na ci man dara situation taxaw mu war ko régler comme waa kuy dingaat la dafa tek ki jaaro oram jox ko ni ko dencal ko te góor gi benn way la am muy ron sayada mu julli dugal ko fa ñu ko ñew sacc jaaro ba dem ba mu bàyyi ba ca ëllëg sa mu ñëw ni ko jaaro bi ma la joxoon laa jël si góor gi daw dem yëkkati si jaaro bi gisul jaaro bi njaaxle nag dikkoon ko mu def tawassul ci yonent bi ni ko su dee nangu nga benn benn benn ci julli yi ma mës a julli yépp gàcce gi yàlla na ma ci génn noona muy waxee soxnaam ëññu ko ca waañ wa ni ko nijaay moomu ni ko naam mu ni ko kaay mu ni ko yow loo mu ni ko jaaroo mu ni ko jën dama ko jënd ca marché ba ñëw di ko waas bi ma xottee biir bi laa ci fekk jaaro bi du li nga doon mu ngi ko raxasal jox ndege bi mu ko sànnee géej yàlla daa yebal dir bu ko wan ma jën woowu la soxnaam jënd ci marché bi ci kër bi mu ñëwee ne waa sa jaaroo ngi waa xëm xim bi di ko ni ko nu demee mu ni ko yow nu mu ma waxee ni mu demee rek ma wax la ni mu demee mu ne ko sa jaaro la wala mu ne ko sama jaaro la man nga ko dénkoon mu ne ko mu ne ko waaye maa la doxeewaat ginnaaw jazakallah maa la doxeewaat ginnaaw ci jaaro bi sànni ko géej mu ne ko yonent bee ko dugal ci gémmiñu jën ñu napp ko yàlla dogal sama soxna jënd ko indi ko ci dër gi ñu waas ko génne ci sama jaaro moo tax ma ni kenn mësul téye yonent di perte abadan mënul nekk jërëjëf jëf barakallahu bi mënul am ci àddina jërëjëf yal na yàlla barkeel ko defee ñu jox cheikh bi waaw mu mu <laughs> ñu jox cheikh bu mu jël parce que lii xale yi dañ ko bëggoon mais dafa dul mën a nekk xam nga tax nit du wax boppam te mënoo wootee ni njabootu Serigne Mohamed lañ boo xoolee ni Mohamed kay waxtaan na ci waaw kay day ndoge kii mooy borom ñaw yi dégg ngeen lii ma sol moo ko ñaw yàlla na ko yàlla fay dafa mati nabi alayhi salaam gàmmu gi gën a rëy ci yi nga xam ni danaa koy organiser jërëjëf ci yi nga xam ni danaa koy organiser Malika la defe te wallahi damay joxe ñu waxtaan ko parce que bëgguma bokk ci waxtaankat yi dama bëgg a bokk ci taalibe yi dama bëgg a bokk ci ñiy jariñ wax naa ko sànq ci kàddu yi islam moo fi ne iman ak ihsan ñetti yi rek yàlla dogal dogal ko maanaam dugal ko ci benn aaya alquran ci benn aaya rek la ne fala wa rabbika la yuminuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum wala yajiduuna fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima alquran la yàlla ni yonent bi nit ñi ñu gëm duñu gëm yàlla mukk lu dul ne dañ laa jël yow yonent bi ngay àttee seeni diggante sharia taxaw ay àtte la noonu ay ahkaam la mu ni ko wala yajiduuna fi anfusihim xarajan mimma qadayta soo xasee ba àtte teg ko kenn ci ñoom du diing diingal ci li nga àtte dañ koy gëm loolu iman mu ne ko wa yusallimu tasliman du ñu yem ci gëm ko dañ koy taxañ lépp jébbal la loola ihsan la wa amma al ihsanu fa qala man tarahu an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sharia la wax wala ma wu feq yi dañ ni ihsan mooy nga jaamu yàlla ba mu mel ni yaa ngi koy gis boo demee ba lott ni gisatoo yàlla ne la wóor ni yàlla moom mu ngi lay gis jërëjëf loolu la ulama wu feqe yi wax mais lan la ulama wu tasawuf wax dañ ni mel ni yaa ngi gis fa in lam takun soo nekkatul taraw waaw ah. boo nekkatul gis ko parce ku nekk du ko gis yàlla personne du ko jaamu personnalité ko jaamu ah. yàlla

te yàlla nee na loola moo ko koy delloo wàññiwuma tus yokkuma tus wax naa ko dégg fii ci kër ñoom Ablaye maa ngi fi ba une heure du matin ma ne leen yàlla mu taxañ ñun ñun ñëpp dugal ñu àjjana lan la ko wàññi moom yàlla mu dajale ñun ñun ñëpp dugal ñu sawara lan la ko yokk moom yàlla mais pour bëgg organisation am am na droit ne lii bu ko def lii bul ko def loolu organisation borom kër bu ne sax sañ na ko ci këram moo tax ma ni yàlla daf noo jege ñu koy wëri kañ lañ koy gis moom dañoo jege ba noppi ñun ñu jóg di ko wëri wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla ne sa buumu xol maa la ko gën a jege te saa yoo xëyee di ko wëri foo koy gisee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu